asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi si taan Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu amaan mbégte kontaan te jàkkaarloog yi fii si Dakar Midi fas yéene dalal fi benn ndaanaan ndaanaan ba nga xamante ni boo yoo xool yëpp féex boo wooyee ñëpp kontaan kenn dootu ko présenté muy Mbëggé Mbëggé bu seen Petit Gallé nuyu naa la ma bàyyi la nga présenté ak suñu mbokk internet yi si taan Dakar Midi maa ngi lay fay Eva bon salaamaaleykum tout le monde maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ak fu ngeen may seetaane yéen ñëpp donc c'est bëggee de Sen Petit Gallé wala Mbeugué All Star si vous voulez voilà. kay nii la ñuy def rek Mbeugué ñu laaj la kan mooy Mbeugué bu ñu bëggee xam parce que xam nañ ne ñëpp xam nañ bëggee mais kan mooy Mbeugué exactement. bon Mbeugué c'est une jeune fille comme tout le monde bu am 19 ans euh, nekk di suivre. 19 ans nga wax de. 19 ans am. kon léegi ma jër majeur mais bien sûr. kon xale yu góor mën nañ ñëw. bàyyi leen wax boobu. noppi naa bokk kon continue. bon voilà je disais 19 ans nekk di suivre euh, sama étude supérieure et tout donc euh, une jeune fille bu ñëpp xam buy évoluer sur musique depuis longtemps et voilà qui a décidé de commencer sa carrière solo. ok léegi ñu bëgg xam lan moo ko dugal ci musique ak te mbëgg da doon jàng parce que dañ doon dégg mbëgg da doon jàng. et tout ça lan moo la dugg si musique bi ba nga dugg si Petit Galle ba jël si je pense que c'est en 2013 non. ok bon en fait musique bi ça a juste été une passion pour moi depuis longtemps c'est juste ça mais n'empêche ba tey maa ngi jàng. donc dama doon jàng mais même li ma doon jàng très jeune des fois dama doon woy suñu foyer école ak yëpp parce que dafa nekkoon loo xam ne dafa dama ko yàggoon bëgg mu yàggoon si man et tout jusque yàlla moo xëy rek may ma opportunité ma bokk si seen petit gallé faire découvrir mon talent voilà. léegi itam xam nga jàng moom dafa dafa dafa fiir lépp loo ko booleel day dem bàyyi ko lan nan nga mën a cumuler jàng beeg woy beeg tout bon juste yaay xam noo koy defee rek parce que aussi affaire yi méttiwul trop méttiwul trop parce que musique ak euh, jàng si benn côté dañuy nduroo parce que ñaar yëpp par exemple ay texte la yooyu war a bind yooyu réfléchir jàng ko par cœur et tout euh, juste que dañoo bokkul carrément domaine bi day nekk artistique bay nekk professionnel tu vois donc juste que moi heureusement que euh, yaa Tata Ngoné ak sama yaay yëpp samay parents yoo xam ne dañuy continuer tout le temps di veiller si samay études donc aussi mu lu ma fonk parce que voilà j'aspire vraiment à être parmi les quatre de ce pays donc en même temps moo tax su fekkee am nga benn concentration man nga allier musique ak euh, vie professionnelle c'est-à-dire étudier et tout c'est pas quelque chose de compliqué ok léegi mbëgg yow 2013 bi ngay ñëw si Petit Galle euh, amoon nga woon accord parent wala amul woon ñi bañ amul woon ñi nangu seen famille bon bu dee sama famille yëpp moom bañuñu woon y a juste mon papa qui était un peu réticent au début euh, par rapport ak euh, voilà affaire way yëg yooyu et tout tu vois parce que du parents yëpp ñoo koy bëgg mais juste avec maman ñu convaincre ko xam nga wax ko nekk ko foo rek la donc à la fin il a compris après mu bàyyi ma ma dem. kon daal nga def boobu. kese kese. <laughs> Mm, bi nga ñëw Petit lan moo la gën a naqari si Petit Galle wala lan moo la gën a neex si Petit Galle bi nga si duggee bi nga si duggee jusqu'à présent. bon depuis 2013 ba tey je pense que su ma si gisoon dara lu ma naqari je pense que génn naa wala samay parents génne nañ ma ba pare donc ça veut dire que ne su fekkee jusqu'à présent ñu ngi toog ñun ñëpp c'est parce que évolution rek lañ ci gis ak ñu neex donc li ma si neex surtout mooy que voilà ça nous permet de faire découvrir notre talent euh, au monde entier c'est-à-dire de savoir euh, xam fu ñu teg suñuy tànk aussi tu vois donc ça nous permet aussi de xam nga xamanteeg yenn nit découvrir beneen milieu yombalal ñu affaire yi tu vois aussi ça permis de faire beaucoup de découvertes parce que à travers seen petit gallé que j'ai pu visiter yeneen pays yi xam nga dem si yenn pays wane fa sama talent aussi et def yeneen découverte xamante yeneen nit donc wala seen petit gallé bëri na beaucoup de choses yoo xam ne du yëpp la ñu mën a wax yoo xam ne vraiment nekk na lu neex loo xam ne moo tax ñuy continuer di si topp. mbëgg sa nan nga def daal ba clip parce que instant moom clip bi moom macha bon clip bi on a tourné ça à Espace Beauté chez Hawa je la salue de passage parce que moom jàpp na si bu baax boo gisee cadre yu si bëri lépp ci clip bi foofu lañ ko defee euh, ak yenn partie ñu defee place du souvenir et donc euh, voilà mu nekk clip boo xam ne dafay ànd ak jamono. nekk tendance bëri ay sañse bëri affaire au feeling et tout avec beaucoup de choses de très belles choses et je pense que ñi ñi gis nañ ko et apprécier nañ. léegi yow ma laaj la lan moo tax waa Prince Art wala waa ñoom Tata Ngoné préféré yow nga njëkk def euh, si clip parce que clip bi nga ko lancé moom macha allah. <laughs> bon je pense du dara je pense que surtout bu ñu ko defee si parce que ordre bi la ñuy suivre rek parce que boo xoolee si All Star je pense man ak Bintu ñoo si njëkk donc euh, voilà ñu ne pourquoi pas ñu commencer ak man après xam nga par la suite di topp année yi après Moustapha xam nga Aïcha Koné Amadou et ainsi de suite tu vois. yow lan moo tax nga tuddee clip bi yaa ngi gay parce que instant yi moom ñun bu ñëwee sa kër ba léegi yaa ngi gaañ. non yaa ngi gaañ parce que en fait c' est un peu par rapport ak thème ak style clip bi surtout parce que xam nga clip bi ñu ngi siy wax affaire fashion affaire sañse yu nice et tout tu vois donc pourquoi pas quand on parle de jigéen da ngay sañse defar ba mu nice et tout forum bu ñu ne yaa ngi gaañ c' est pourquoi ñu ne pourquoi pas ñu tuddee affaire bi yaa ngi gaañ clip bi. léegi son bi yaa ko bind wala waa Prince Art wala ak ñan ñoo si jàpp. bon son bi avec euh, l'aide de Tata Ngoni et tonton bu moo bind son bi Baxaaw moo bind texte bi yëpp. noo ko assuré. je pense que ainsi bi nii vraiment à part Petit je pense euh, sama carrière laay e def donc là déjà on a eu un hit benn single bu génnagum donc euh, le temps ñeneen ñi tamit di génne seen single parce que c'est un projet c'est projet de huit singles du man kese donc le temps ñeneen ñi ñoom ñëpp ñoom Bintu Mouhamed Pape aussi di génne seen single donc euh, ñun aussi dañuy continuer di liggéey ci suuf pour indi leen ñeneen affaire pourquoi pas un album wala même comme tu dis featuring avec yeneen artiste ko mu mën ci doon et tout juste pour bégal leen voilà. man dama seetlu bu ma ñëwee fii ba léegi yarul laa gis yow te daanaka dañuy dégg ñi naan Petit Gallé day yàq xale day yàq xale te man loolu gisuma ko ci yow ak yow loolu nan nan koy jàngatee. bon mooy comme li may wax rek tout le temps. nit lépp loo gis lépp ci éducation ba la tout tout tout ci éducation bala te vraiment voilà même réponse mooy ñëwaat tout le temps bu doon yàqu ñun ñu fa nekk ay at man maa ngi nii 2013 ba 2021 ça huit ans bientôt neuf ans ba tey maa ngi fa déggoo leen dara lu ñaaw si man mooy man ay Aïcha Bintu Ndaxte et kii que ce soit ñun ñëpp déggoo leen dara ci lu ñaaw donc waa ngeen xalaataat bu baax xool ndax Petit Galle mooy yàq ñi ñi wala nit ku nekk mooy demee ak éducation ak volonté bopp. waaye léegi mbëggee ñu laaj la continuation bi rek mooy loolu. Euh, Continue sans vie en fait c'est une chanson qu'on a écrite boo xam ne la femme surtout xam parce que ñëpp xam nañ que léegi vraiment toutes les femmes sont remarquées par rapport à leur style tu vois un peu donc tout le temps da ngay gis exemple koo dit waaw elle est stylée elle est bien da ngay gis ñëpp dañ lay mais quand c'est tout à fait le contraire dañ naan moom kii dafa modde wala tu les gens ne s'intéressent un texte boo xam ne c'est par rapport à la femme le style l'habillement le fait de bien se sentir dans sa peau et tout xam nga par rapport ce style ak népp ni ngay doxee. Euh, léegi yow ban message ngay lancé xale jigéen ñi nga xamante ne dañuy woy dem ba commencé woy après dem jëli seen appartement bopp dëkkatuñu kenn te loolu noonu ban message nga leen di lancé. Euh, bon loolu nag je pense que bon. Euh, xam nga maandu dafa baax si nit tu donc je me dis que c'est c'est leur vie c'est leur choix parce que après tout fii ku fi nekk sa magu bopp nga tu vois xam nga lu baax xam nga lu bon tu vois donc si vraiment tu de dëkk yow kese wala jël sa appartement et tout loolu je me dis que sa vie privée la et que man j'aurais pas à te juger et tout parce que après tout ku nekk ak say choix après nga assumer leen et tout mais à part ça moom li may wax rek en gros mooy que voilà na ku nekk xam boppam xam fi ngay teg sa tànk voilà di sóor ëllëg léegi mbëggee lu euh, amu leen benn retard ak par rapport ak euh, yeneen euh, artistes yi nga xamante ne ñoo nekkoon Petit Gallé comme ñoom Diarra ak ñoom Dieyla ñi nga xamante ne instant ñu ngi def ay clip yu bëri yu bëri bëri bëri bëri amoo leen benn retard ak yéen. bon non amuñu benn retard ak ñoom tu vois parce que ñun en fait dañu yàgg di way bien sûr mais on faisait tout en groupe tu vois donc c'était des trucs qu'on faisait en groupe avancé ba tey. ba ñu xaar ba majorité bi ñëpp am seen baccalauréat mën a am benn en fait niveau si jàng bu kawee tege ko de côté doo a mën a concentré aussi seen carrière solo te juste benn phrase bu ñu doon wax moom laay taxaat di wax njëkk a fecc taxut a mujjee géew comprendre nga donc c'est pas parce que ñoom def nañ ay clip yu bari que voilà nous on est en retard non retard bi je pense kañ la doon am bu fekkoon da ngay dégg ñëpp fenn doo dégg fenn waa Petit Galle Mais il faut savoir que déjà, il n'y a pas longtemps, on a fait euh, Petit Galles maintenant à huis clos, durant version Corona, et je pense que ça a fait un boom. Durant des semaines, chaque semaine, vous avez def way, dites-le carrément tendance YouTube, bu ne kii nekkee première place ki si topp troisième jël bépp c'est-à-dire que ñëpp dañuy si top 10 bi tu peux avoir jusqu'à sept prestations si benn top tu vois par exemple duo Moustapha bi mu def la fois passée ça fait mu ngi si man maa ngi ni génne sama single même pas une journée nekk numéro de des tendances donc je vois que ne vraiment bu fekkee retard da doon am day fekk nga dégg ñi fu sori te ñun dooñu déggati ñu fay mais n'empêche ak ça même si c'est en groupe on continue vraiment à faire un boom te faut savoir que ne même carrière solo bi ñun du suñu début tàngal ceeb en fait parce que ñun yàgg nañu xam partout dans le monde ñëpp bëgguñu duñu supporter ñu am ay fans am ay followers si lépp continuité la rek génne sa carrière solo continuité c'est-à-dire dañ doon defandoo lépp mu leeni di neex ku nekk na jël yoonam continuer c'est juste ça mais c'est pas un début Euh, bon musicalement je ne trouve pas et je ne pense pas peut-être différence yi mooy peut-être xam nga parce que des fois ku nekk dafa am benn style en fait booy adopté tu vois ñii par exemple da ngay gis ne ils sont plus ci affaire ngéwal ñii sont plus ci affaire en fait luy xaw a moderne et tout mais ñun en fait chance bi ñu am mooy que faut savoir que ne ñun dañ daan interpréter yo wayu donc je essaie de te mettre dans la peau de l'artiste et tout xam nga ak artistes yu bëri façon bu nekk ñun on a fait du des chansons modernes moderne et tout tradi moderne on a tout fait version live yi xam nga te ñun live lañ doon way du woon playback du woon dara donc nous en fait chance bi ñu am mooy que style bépp la ñuy adopté man par exemple gis ngeen ma si sama lépp on me fait que je suis polyvalente macha parce que style bu nekk laay wayee foo ma jox teg loo ma jox ma naan ko xam donc voilà je me dis que ne ndu amuñu différence quoi parce que ñoom li ñuy def ñun dañ koy def donc je vois pas de différence bon vraiment encore une fois voilà kontaan naa vraiment di leen remercier yéen ñëpp waa Dakar Midi euh, voilà di wax ne kontaan naa trop si seet si bi Eva merci beaucoup euh, di remercier Sénégal ñëpp ñëpp ñu may soutenir samay parents partenaires yi e Eben Eben Prod euh, complexe Sofia Tafat Laken Kineno Design ak espace beauté ñi nga xam ne ñoo jàpp baax ci clip bi surtout euh, ak tout le staff de Prince Art team Mbëggé tout le monde encore un grand merci voilà.